salaamaaleykum salaamaaleykum Ngagne Séré Thiam Dogo maa ngi lay nuyu bu baax te di la ziar di la balu nga baal ma ax Thiam dama la woo pour nga xamal Alassane mbay ni ka man bi ñu may tëj kaso yaa nga Amérique ci fin bi nga ñëw dëgg la de toggal nga ma fa ay pentaat lu ma juróomi yoon am na boo xam ne du ma ko fàtte sax da nga doon tukki sa jarabaat nga ko jox moo ko togg indi ko waaye nga fàttali alsane ni que man ba ma ba ngay may toggal ak bu may génn benn la te cee soirée ba bu aaroon a ja bu mu ko tuddee dama génn ba am semaine mu def ko ci ëllëg sa moom laa woo mu ne ma màggañ si ànd ma ubbi sama coffre yaa ngi toog wàññi neuf mill euros jox ko ci sa kanam ni que man duma ma lekk ñamu gé du ma lekk du lekk ñaqu géwél ndax yow sama doom nga soo toogee di ma woy fu nekk di togg di indi sonn ci lool soo paree war naa la jox ndàmpaay ma jox ko 9000 euros yaa ngi toog keroog duma ko fàtte mbubu xartum bu beige nga sol nga toog ci sama digg nag yaag moom ma ubbi sama coffre bu ndaw bi fàttali ko loolu ni ko toggam googu fay naa ko ko ba mu jeex fay naa ko ko ci su Makka fay naa ko ci million ba bërki dem sama anniversaire ñaari million laa ko may ci ëllëg sa bañ ne mardi boobu nga xam ni ci laa doon def sama sama sama sama sortie bi ma doon def un million cent laa ko jox ni ko cinq cent mille jox ko géwél yi nga àndal million bi maa la ko béy mu ñetti million dans une semaine man nag aw ma vingt millions quarante millions yu may may géwél mu koy foyee wala mu koy def man damaa mi mbokk am famille te sama xaalis dama ko liggéey mu lew ma doom man xaalis bu ma liggéey mu lew ma doom du ma ko exposé du xaalisu mbalit du xaalisu luxus du xaalisu drog na nga xamal alsaan may di ko wax jooju nag gàtt di ko wax dama la doon toggal te booba yaa ma ko sant waaw mu daan ñëw ci man ne ma mère loo bëgg ma ne ko pentaat laa bëgg nga togg ko fa juróomi yoon du ma ko fàtte dara jee cheikhul xalifa dama ko wàññe ba ma génnee le 17 mai laa génne le 27 mai la doon def soirée Arouna Dia ca ëllëg sa muy vingt 28 maa ko woo foo nekk mu ne ma dama génnoon waaye maa ngi nii ànd gañ sëri yéen a ànd ma ubbi sama coffre jox ko 9500 euros fàttali ko loolu ni ko toggam googu fay naa ko ba mu ci ay paasu màkka fay naa ko ko ba mu jar ci ay million fay naa ko ba mu jar ci boole ko ay nit te itam ba ma koy may million di ko yóbbu màkka ñii muy wax ne ñoo koy taral booba ñooñu amuñu paase màkka bu ñu ko jox wax ko loolu fàttali ko lool ni ko lool na ko bàyyi di ko wax te bu ma ko waxatee danaa ko wax lu bon te dinaa ko toroxal ci mbooloo yow nañ dama doon ci am ngay sama doom ma la koy yëgal